salaamaaleykum um, donc mu bëgg a def si benn sujet bon je vais commencer par mooy bu gën a am solo le plus important mais peut-être nit ñi euh, moom la ñuy gën a peut-être ñàkkal fayda après ma terminer bi nga xam ne pour man moo gën a ñàkk solo mais nit ñi sont plus intéressés par peut-être le buzz et par instant bi Ousmane Sonko euh, et problème bi nga xam ne nii problème Adji Sarr la n'est-ce pas après ñu jaar. avant si yu ñu jàll si Mali ak France 24 ak RFI bi nga xam ne dañ koo coupé première chose mooy euh, ndox dañuy waxtaanee mooy comme ni ma ko waxee la guerre de l'eau aura lieu c'est-à-dire xeex yi nga xam ne nii fa lañ jëm ci àdduna bi ñu jëm bi ñuy dund nii guerre de l'eau muy xeex ngir am ndox moo nekk principal conflit te loolu noonu ñun africains yi sénégalais yi en général dañuy bàyyi ba affaire ne Katrina John ñu doog ko dund alors que européens yi ak ñi nga xam ne sont les occidentaux dañuy jël en avance di xool problème yi nga xam ne daal trente ans 50 ans ñoo nar a am et ci loolu la ñuy basé wu ñoom pour def seen stratégie pour prévoir seen population pour que bu ñu eggee sa cappaandoo googu ñu bañ a ndox dañ koy wax or fi ñu toll guerre yi ëpp li koy amal mooy or noir muy pétrole et c'est dit depuis que ne ci 30 ans yi ñu jëm guerru ndox mooy nekk principale cause de conflit te loolu forum de Davos en 2015 ñoo ko indi biñ ko indi nag ñu ngi ko indi ci ay jàngat yu leer mooy rareté réserve ndox mooy ndox mi nga xam ne nii réserve la ñu denc ko mooy ñu nekk suuf suñ suuf tànk ñu mën ko naan mën ko jëfandikoo ndox moomu dafay gën di ñàkk di gën di ñàkk ñàkk boobu dafay jëm kanam loolu nag ni ma leen ko waxee si ay jàngat la parce que am na benn institut bu ñuy wax institut du Pacifique ki ko créé en 1987 ne tudd GLEC moom dafay def ay càmbar yoo xam ne da koy teg ci ay recherche teg ko ci xam-xam teg ko ci euh, wër loo xam ne si ndox rek ñoom la ñuy jublu ñu rappelé année boobu dans 2015 am na ay conflits yu am ci ndox benn bi euh, Arabie Saoudite ca Yémen yàq na fa usine boo xam ne dafay du usine ndox parce que ndox kenn du ko defar ndox ñun ñu ko defar usine embouteillage comme Kirène rek c'est-à-dire dañuy jël ndox daal lu koy àmbale euh, pour. solal waa Yemen beneen bi tamit amoon na euh, ca ca ca ca kii comment dire ca Syrie Russie yi tamit bombardé woon nañ des réserves d'eau ca Alep bi ñuy xeex ñoom les rebelles mais ru ci ca foofu tamit waa rebelles yi ñoom da demoon nañ ñu saboter réserve d'eau yi nga xam ne moom mooy alimenter capitalu Euh, Syrie ba nga xam ne quatre pour cent de la population dañu amoon jafe-jafe pour am ndox donc gis nga ne ndox moom dafa nekk ci stratégie de guerre comme li ñuy dund léegi Ukraine nga gis ne gaz bi pétrole bi blé bi lépp dafa ndroog bombe ndroog avion ndroog ay fusée lépp ci stratégie de guerre la ak stratégie bu nga mën a euh, ñàkk sa dëkk parce que boo amee conflit li ngay njëkk a ñàgg si dëkk mooy li ngay li ngay naan ak li ngay lekk léegi ñu dem ci ndox donc dama koy jëlee fu xaw a yi mooy dafa am euh, lu ñuy wax sonde voyageur 1 sonde spatiale ba la ko déggee mooy dañuy envoyé benn affaire ci ci espace ba léegi muy dem ñoom ñuy seet léegi sonde voyageur 1 mi ngi jógee euh, ñu ngi ko lancé dans les années 70 bi mu demee ba 1990. Euh, sonde boobu nekkoon à 6 milliards de kilomètres 6 virgule 4 milliards de kilomètres donc en 14 février 1990 bi mu eggee foofu donc génne na lu ñuy wax système solaire mooy système mooy suñu àdduna bi la terre mars mooy donc planète yi planète yi ngeen di jàng yépp boo génnee ba fi nga xam ne jant bi tàngaayam ak ak ak ngelawam ñuy vent solaire foofu la yem muy muy héliosphère bi mu fa génnee. dañoo retourné sonde bi loolu nag bokkul woon ci mission bi pour mu def benn photo photo boobu ñu ngi koy tuddee photo de famille photo de famille boobu dafa am benn savant boo xam ne mu ngi tuddoon Carl Sagan Carl Sagan moom moo jiite woon mission boobu parce que xelam xelam dafa màccoon si lu bëree bëri moom moo ko concevoir léegi moom bi mu gisee photo boobu dafa amoon benn texte bu mu defoon ñu koy woowee the pale blue dot pale blue dot mooy lan mooy le point bleu pâle bu ñu jëlee photo bi dafa rëyi mais ay point rek ngay gis ñun suñu terre fu ñu nekk dafa tuuti mu nekk lu dot moom mooy point donc ci photo bi mën ngeen ko xool ci internet boo leen bindee the blue dot wala le point bleu pâle wala Carl Sagan dangeen gis ne photo boobu planète yëpp la regroupé ak ñun suñu bos suñu bos nag ñu lu tax ñu tuddee ko pale blue dot moom mooy lu ndaw a ndaw ndaw a ndaw ba lu tax àdduna bi bleu ndax bokk na ci ndox mi géej gi parce que 70 pour cent la surface de la terre est recouvert ndox moo ko occupé donc ndox moom en fait boo dañoo ne sa planète terre ba dañoo doon wax planète mer donc ndox moomu ak atmosphère bi ak lumière soleil mooy tax ñu koy refléter mooy tax mu bleu donc ndox moomu am na solo lool donc ci ñun nu ñuy mel sax boo génnee suñu àdduna euh, boo génnee suñu àdduna moom mooy mën a univers pas nga nga nga dee mu ne xool leen tomb boobu noonu bi nga xam ne dafa baxa mooy bleu mu ne gis nga tomb bii ñépp ñi ngeen xam ñu soxor ñu rëy politiciens yu bon yi ñi nga xam ne ñu ngi woote ci diine jëm ci christianisme jëm ci judaïsme jëm ci islamisme jëm ci budaay jëm ci lu nekk fii lañ juddoo fii lañ deewe fii ngay gis dëkk ak dëkk di xëccoo suuf soo xam ne lépp mi ngi ci tomb bu ndaw bii tomb bu ndaw bii moom moo am ñi nga xam ne jur dictateurs yi gën a bon ñi nga xam ne seen xol rëy na rëy boo xam ne lépp mi ngi tudd ci tomb bu bleu bii nañu def lu ñu mën ngir sàmm suñu tomb bu bleu bii ndaxte fii ba fu ñu nekk ak fu ñu jëm mënuñu génn fii nii ci tomb bu bleu bii xamuñu feneen fu ñu jëm mënuñu génn feneen xamuñu feneen fu bakkan mën a dund fu dul suñu tomb bu bleu bii mu ne tomb bleu bii mooy kër ak benn kër bu ñu xam bu ñu mën a dëkk yéen a ngi dégg euh, exploration jëm ci Mars bu ñuy ut fu ñu dëkk ak fu ñu mën a fu dund mën a nekk luy njëkk lu ñu xool mooy ndox ndax ndox am na fa marché moom dafa am lu ay traces mooy ay calcaire ak yooyu wala ay géej yoo xam dafa dafa dafa dafa euh, seey yu ñuy gis ne lii nii kat yaa njox nañ ne ndox amoon na fa donc ñi ngi def lu ñu mën pour gis rek luy nduroog ndox te gise gisaguñ ko fenn fu fii nii si àdduna bi léegi ñun yàlla bu ñu mayee ñu am ndox moo xam ne mi ngi suñu suuf tànk bëri lool neexa naan lool ay toni toni mu mètre cube <clears throat> di jóge si <coughs> dex yi di sotti si suñu géej gi te ñun mënuñu koo utiliser ndox mi nga xam ne si lañ euh, taxaw nga xam ne boo gasee a fenn ay 5 mètres fii 10 mètres fii 15 mètres nga am ndox boo mën a naan ñun mënuñu koo jëfandikoo ñeneen duñu ko jaay ñu xam ne loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy européens occidentaux yi teg nañ seen bët du 21 jusqu'au 26 dafa am fii ñu wax fii le forum mondial sur l'eau forum mondial sur l'eau boobu am thème yoo xam ne mooy ci développement ak sécurité sécurité boobu mooy première sécurité bu ñu nee nag conflit yi nga xam ne nii risque de conflit yi gën a euh, mag ci 30 ans yi ñu jëm ci ndox la kon yow war ngaa def lépp lépp lépp ba ñàkk sa ndox sa ndox moom bu ñuy xool Ukraine lu ñuy njëkk a jàngal mooy enjeu ressources yi c'est très important ndax fi russe bu nekk woon amul indépendance ci ay ressources am ma ne la kon ba léegi narmeelu na te ñépp li ñuy xoole russ yi am na ñoo xam ne nii ragal ragaluñu ko ndax armement mais dañ ko ragal ndaxte li ñuy dundee jëm ci ressources yooyu noonu dafa nekk moom da ko téye léegi ñu am ndox moo xam ne ñépp a ko soxla ndaxte ndox moom lan moo tax réserve yi moom muy commencé di wàññeeku bokk na ci urbanisation bi bokk na ci euh, démographie mooy nit ñi dañuy gën di bëri bokk na ci réchauffement climatique te dafay jëm kanam bokk na ci tamit léegi ni ñuy fay di bayee muy méthode irrigation yi boo xoolee ñi am doole ñi gën a am doole dañuy jël ay hectares yu bëree bëri ma tudd si rek sédiment ak loolu muy def sa Ndingler donc di soutenir waa Ndingler bu baax a baax a baax a ne ren ji ñoom bayuñu bu buñ moytuwul dinañ dee ci ci ndóol ak mar ñi ko mën ñu jàppale leen waa Ndingler lu ñuy lekk donc di di jaajëfal Mandé Mbori photographe moom mu ci def liggéey ba mucc ayib donc irrigation boobu 70 pour cent réserve eau da koy jël pour pour pour pour pour ay méthode bay yeneen yi mooy industrialisation yi parce que boo xoolee usines yi li ñuy jël ci ndox dafa bëri yu mel ne comme cimenterie euh, te ñun am nañ trois cimenteries bii euh, mooy mooy ciment du Sahel beneen bi Dangote beneen bi euh, bi nekk Rufisque donc cimenterie yooyu li ñu jël ci ndox dafa bëri donc fëpp foo gis industrialisation réserve en eau li muy soxla dafay gën bi jëm kaw. léegi nag ñun nan lañ mën def ba suñu ndox ñu mën ko ñag ba nga xam ne suba buñ eggee foo xam ne ni dina ñàkk ñu mën a toog sécuriser ba pare protéger suñu ndox fi mu toll Sénégal am na loo xam ne am na fi mooy lan mooy kenn naanatul ndox robinet te ndox robinet dafa war a potable ñun seen eau moo jaay ndox société française la donc ñun amuñu suñ souveraineté suñu ndox parce que dañu koy jaay mu ngi gën a cher bu njëkk ba ndox robinet lañ doon naan mais léegi de plus en plus ndox robinet dañ jàpp ne kenn du ko naan dañ jàpp ne man sama doom ndax même ndox ma doy naan ndox robinet noonu ndox robinet dama de dafa am poison ndax day jënd ren chaque jour mille francs wala 2000 francs te loolu pour man ku neex na nga a complot la c'est fait dañ ko def ngir tax ñun ñu bàyyi di naan ndox jàpp ne ndox dañ ko war a jënd non ñun am nañ ndox bu ñu war a mën naan war nañu mën a jënd ndox pour naan am nañ ndox bu ñu war a mën société boo mënul jël ndox mi traité ko te loolu technologie yi gën a simple boo ko mënul vraiment nga bàyyi ñu suñu ndox. boo ñu mënoon jox ndox mu ñu naan mais Sénégal tey bala ngaa naan ndox da koo jënd bu njëkk ba ku ñu gisoon nga yore Pierre Val dañ naan la yii yow da ngaa xaalis da nga jënd ndox waaye léegi kenn kenn naanatul ndoxu ndoxu robine loolu lu ko def stratégie la boo xam ne ñoom ñi ngi xalaat fañ jëm parce que dinañ dem ay jëm jamono euh, euh, maa wax ci conflie ndox. Euh, dëkk ak dëkk bu conflit bi njëkk am Mésopotamie la woon ci suuf Mésopotamie te loolu yàgg na deux mille cinq cents ans avant Jésus-Christ euh, États-Unis ñoom ak Mexique seen frontière ñi nga am ay conflit ndox waxoon naa ne Arabie Saoudite Yémen waxoon naa la waxoon naa la waxoon naa la donc conflit yooyu dafay gën di bëri te ñoom ñëpp nag bu ñu manqué ndox fii la ñuy jëm si ñëw Afrique xëcc suñ ndox di ko dem di ko jëfandikoo ñu nag lu ñuy naan am na benn film bu tudd. Med Max boo xam ne Mad Max boo xam ne bi mujj dañ lay wan nit ñi ni ñuy gérer pour am ndox te loolu noonu fiction la mais film yi dafay am fiction boo xam ne dañ lay won une partie de la réalité mooy jamono yooyu ñuy dund ñoom amul règle amul dara nit ñi dañuy reyante donc ki nga xam ne moom moo nekkoon dictateur bi lu mu defoon rek dafa téye loolu nag dinañ ci egg bala ñu cee egg nag ne nit ñi bàyyi xel si li may wax mooy. bu ñu demee bu ñun mu ñu naan ndox moo xam ne si suñ kii la euh, suñ suuf la nekk nga gas def pompe di naan ndox boo demee cité Apix mooy foofu ma def noonu daanaka ñëpp am nañu ay pompe parce que ndox mi sorewul mais la moo tax SDE mënuñu jox mu ndox bu ñuy naan waa Mbàkke aussi ma leen di jaajëfal parce que ñoom grève nañ pendant des mois waa Mbàkke ne duñu fay facture ndox bi ñu ko defee waa SDE ñoo ñëw fa di négocier ak ñoom di négocier ak ñoom ñoom nag ñu jël seen matukaay kenn du coupé seen ndox bi fa. Euh, directeur euh, SDE kii euh, je pense SDE loolu xaw ma xaw ma seen o bi mu fa ñëwee pour rencontrer leen dañoo dem tànk sa ndox robinet ma ñoo tegal ko mais daf na ndox du naan du du naan ndox moomu yow yaay directeur bi ñu koy jaay ne ndox moomu baax na ba pare ñu jox la ko ne naanal benn bouteille rek nga doo naan ndox mi donc ñun suñu xas suñu xel war na mën a war na mën a ñaaw ci loolu donc li ñu war a def mooy ñu bàyyi xel ci forum bi ñuy def. mooy en général day ñëw looyu si hôtel yi def seen ay ay conférence def seen ay discours mais duñ ci gëm dara duñ ci def dara loo xam ne en fait mais tubaab bi fii ñëw ñoom ñu ngi ñoom seen stratégie yu dëgër xam bu baax fu ñu jëm ute information yu dëgër xam réservé yu nit ñi am ak ñun na lañ koy utiliser suba ñun nag suñu population day gën di yokk Dakar rek dañu am problème de distribution de l'eau parce que urbanisation bi saa s'est fait de façon vraiment anarchique te loolu nag dëkk dafay dafay am stratégie bu muy bu muy màggee ñu xam fan la jëm ñu xam nan lañ leen di joxe approvisionnement en ñu xam nan la utiliser l'eau parce que comme ni ma ko waxoon dafa nekk enjeu géopolitique majeur li ma ci war ci ci ci ndox bëri na lool lool lool lool mais euh, defe naa ne peut-être comprendre ngeen le sens. mooy fi ñu nekk nañ bàyyi xel loolu nañu xeex pour seen eau mii ñu jël ko jox ko ab sénégale sénégalais boo xam ne bu souverain loolu nag bu ñu ko am mooy nañu fexe ba teg fi koo xam ne nii ku mën a jàmmaarloog tubaab bi la am fulaak faydawu ñun li ñu moom mu teg si loxo ñun ñoo koy gàddal suñu bopp parce que am na ressources yoo xam ne ce sont des ressources de de survie ce sont des ressources yoo xam ne en fait ressources euh, mënoo ko am te te te te mënoo ko ñàkk souverain. Macron bi muy def nii benn euh, discours am euh, par rapport ak kii ñu koy posé ay questions on lui a la question sur les les ressources énergétiques donc moom mu ne dinañ fexe ba sécuriser ñoom seen ressource énergétique parce que uranium bi nga xam ne nii daanaka 70 pour cent ñoom bi ñuy utiliser ñoom euh, ñu ngi ko jëlee ci dëkk yoo xam ne nii Afrique la muy Niger ay ay Kazakhstan ak ay dëkk yoo xam ne en fait. bu ñu xoolee instant bi dañoo taf si Russie c'est-à-dire ñooñu seen uranium moom France dootu ko jot léegi fan lay jëm dina def tout ah ba ba ba ñëwaat Afrique xam nga fexe def tout pour récupérer en fait manque bi war a am ci manque en ressource parce que ñi nga am problème gaz dañu am problème électricité parce que bu ñu amul ressource yooyu te France am am amu ko donc Afrique la ñuy ñëw Barkhane dàq nañ ko mais génnul mu ngi dem Niger tafu fa di nga dégg ñu ne Niger euh, force yi yóbbu nañ leen euh, Burkina Faso wala yóbbu nañ leen Sénégal du ñu dem français yi du ñu dem parce que mu ngi niroog rek ab jinax boobu boo xam ne yow da koy dàq muy lekk sa biir kër am fa njabootam am fa léppam di yóbbu ci kii bi yow mais jinax boobu fekk tegaloo ko pièce mais doo wax ak moom nana ko nañ dimbalama ak yooyu wala nañ nañ waxtaan diplomatie du ko génne nga am njiit boo xam ne dina mën a kase ay contrat renégocier ay contrat bu pare njëkk mu xaat population donc ma tëj loolu ci affaire ndox mi léegi ñu dem ci affaire RFI ak France 24 foofu dama fa yàgg ndaxte réponse simple la loolu moom mooy souveraineté gis nga bi guerre russe commencé ak ak Ukraine France Union européenne même États-Unis léegi je pense euh, États-Unis def nañ ko dañoo suspendre RT ak Sputnik RT ak Sputnik Russian TV la Sputnik aussi mi ngi tudd Sputnik parce que dañ ko jox turu je pense première euh, fusée yi demoon ci jaww ji parce que Russes yi soon sont très en avance sur le domaine spatial donc ñaari médias yooyu c'est des médias qui sont très man foofu laa doon xoolee euh, information France 24 yooyu noonu da ngay xool nag pour xam ñoom seen perspective mais ñooñu dañu ko tëj ndax la pour ñoom ils ne pas neutres alors que ñooñu ñoo nekkoon ñi gën a donc ñoom bu ñu tëjee bu ñu tëjee RT tëj Sputnik mais lan moo tax Mali warlu mën tëj France 24 ak RFI léegi ñoom ñu ne c'est très grave ce que Mali a fait alors que ñoom tëj nañ RT tëj RFI tëj RT tëj Sputnik parce qu'ils sont souverains parce que bëgguñu RT ak Sputnik di joxe la vraie information parce que information dafay équilibré li ñuy li ñuy ay LCI yi wag xam nga France 24 ak ay ay yi ñuy joxe mais bu ñu amee beneen média boo xam ne dafay joxeel beneen version mais yow da ngay def le le le le pour et compte nga mën a nga mën a équilibrer mais média yëpp nga titré par force da ngay wax ci direction ñoom bu ñu bëgg boo ko bëggul ñu tëj la mais mal yi dafa naa live temps yii passé wax si problème yooyu nga xam ne dañu waxoon ne en fait fama yi mooy militaire malien yi dañuy nekk di. rey ay pël di leen euh, torturer et que Mauritanie mi ngi naqaru loolu temps yi la ñu nekkaat di wax ne dafa am ay torture yu ñuy def mais loolu information boobu ñuy joxe te buñ buñ koy joxe duñ ko joxe de façon équilibrée waxoon naa la si loolu du du ma si delluwaat mais mais loolu mën na taal réew comme li li waa Mali wax comme la rajo de mille collines la fexe ba en fait. comme ñoom mun mënutuñu am accès si Russie parce que Wagner ak Russie euh, ci ci Mali parce que Wagner ak euh, Russie ñi ngi fa léegi ñoom ñuy def dañuy xam pour que pël mën a jàmmaarloo ak euh, dogon yeeg ñeneen ñi c'est-à-dire faire exploser le mal de l'intérieur donc man dafay soutien total au Mali soutien total au peuple malien di jaajëfal DJ Kéman ak ñi def marche Dakar Euh, Bamako donc ñu ngi suivre te gis nañ nag différence bi am entre ni ñu leen di accueillir fële Mali ak ni nga xam ne nii fii sawal nañ leen fii au niveau de du Sénégal et may wax ne sama sama problème Sakho et Mangane euh, dinaa man porter plainte personnellement au pénal contre Toumani Sangaré bi nga xam ne malien la mi ngi résider fii au Sénégal daw Mali ñëw fi Sénégal très proche de des des trucs français et tout tu vois qui est dans le truc parce que. il est clairement identifié ne moom te loolu noonu tribunal moo ko def si ci décision am ne moom bokk na si ñi nga xam ne ñooy auteurs yi donc dinaa ko porter plainte au pénal au Mali pour que moom mu wax fan la amee titre de propriété ci affaire Sakho et parce que taxal nañ si Maliens yi effectivement à travers Moussa Konaté te loolu dëgg nest pa euh, beneen bi mooy bu mujj mooy Aïssatou Diop Fall ak euh, problème bi mu wax Adji Sarr ak euh, comment dirais-je Ousmane Sonko donc loolu aussi du ma si du ma si yàgg moom dafa au départ wax na Ousmane mégalomane la menteur la du wax dëgg xam nga vraiment chargé de tous les noms mu chargé ko Ousmane Sonko waaw bi mu ñëwee si Adji Sarr nag mu ne Adji Sarr moom xaritam la dañuy gise da koy woowee tata et puis xëcc si fibre femme bi même yow faati sax jigéen nga am na loo xam ne boo si jaaree donc euh, moom Dirim la peut mu mu def allusion à ça euh, Écosse moom victime la doublement donc yaa ngi traité dossier boo xam ne ñaar nit ñoo si nekk waaw bu la neexee nga jël parti mais il faut accepter que nga jël parti mais mënoo wax ne journaliste yi fa toogoon ñoom ñëpp en fait posé wuñ de bonnes questions euh, Macky Sall recevoir na fa ay yoo xam ne moom dafa taxaw dafa toog ci ci ci ci client. dafa toog comme comme palais présidentiel toog benn trône xam nga jël journaliste yi teg leen noonu ci suuf ñu toog ay fauteuil xam nga mun te loolu doon wax loo ko te journaliste yooyu noonu xam nga leen yi te ñooñu noonu pale moom moo leen choisir moo moo choisir ñan ñoo fa nekk même bu nekkee ne waa Pastef wax nañ ne ñoom euh, waa Walf moom mooy Moustapha Diop wax na ne ñoom bi ñuy préparé seen questionnaire Sonko Sonko da ne yoonam nekku si donc nañ ko posé question yu leen doy à eux peut ñu xool li gën a pertinent parce que la question que tu te poses que tu poses en général en lan la ma doon def moi je pense que la personne a déjà répondu à cette question là yow même boo ko posé woon nga jàkkaarloo moom dina la wax dafa feebar maintenant après foofu ndax c'était la lieu indiqué yooyu yëpp on peut disserter comme on veut mais loolu en fait nekkul la question de fond parce que c'est pas du délit c'est pas du pénal pour bànnee tamit kenn mënu ko bi mooy. Euh, boo boo waaw pour kii la donc beneen beneen bi mooy un journaliste à chaque fois bu ñu la waxee ne booy liggéey si dossier da ngay niróo comme policier mënoo ci neutre bu nekkee ne da nga am lien affectif avec ñi ngay traiter loo xam ne c'est un conflit entre deux deux personnes et en général même si interview mi buy interview chaque fois dafay convoquer. la proximité bu muy am ak ñi muy interview kii sama xarit la kii moom euh, du ma jóg léegi daf may woo damay léegi-léegi lii loolu noonu boo nekkul si yeneen dëkk yi dañ naan la doo amoo crédibilité parce que amoo crédibilité pourquoi mooy parce que journalistes yi dañ leen tere ñuy fréquenter politiciens yi wala ñuy fréquenter ñi nga xam ne ñoom dañu war a bind si ñoom parce que boo amee ñoom affinité yooyu noonu ak proximité bi dañu am loo xam ne doo a bind te yow da a joxe information vraie et juste sans pour autant mu am benn filtre boo xam ne da lay ndax lu sa xarit la wala may na la jesner wala may na la xar wala léegi léeg li donc sa en fait journaliste bu am proximité si si ci ñu muy ñu muy ñu muy ñu muy traité ay sujet rek te loolu moo taxoon euh, ci lu ñuy wax code de Munich code de Munich aussi mën nañu ko bind ci benn code boo xam ne nii la euh, day wax journaliste bi liberté bi mu war a am même bu nekkee ci télé. wala wala réaction boo xam ne nii ki kam moom dafa am coloration politique moom comment il est tenu à garde l'impartialité et à sur les faits donc li CNRA def euh, comment dirais-je ay Aïdara yow war na la dal parce que da nga da nga wane ne da nga partisan nekkoo chroniqueur boo xam ne liggéeyul ci télé boobu journaliste nga loolu la wax ne sesti nga génne donc nekk nga fa chef de rédaction donc da nga am casquette boo xam ne journaliste boo xam ne day wax fait mais avec distance mais mënoo traité dossier boo xam ne kii nga yàqu ko lu la neex kii nag nga ne sama xarit la damay déggante ak moom on se parle mu lay jox version yoo xam ne nga ne yow entre guillemets bu amee procès dinañ gis peut-être loo xam ne nii ah euh, xam nga loo xam ne peut-être nit ñi xamu ko mais loolu dafay dafay dafay insinuer loo xam ne da ngay yàq xelu pour man da ngay yàq xelu nit ñi et loolu c'est fait à à essayant donc merci nag muy mel ne <coughs> Malick Thiandoum parce que effectivement il a apporté un boo xam ne au moins dañ xam ne plateau bi am nañu fa toog ñoo xam ne euh, tiré wuñ tous dans le même sens nest pas bon am na yeneen journalistes yoo xam ne nii peut euh, boo xam ne moom mi ngi des culture euh, tiré il n'a pas dans le même sens mais il a posé une question boo xam ne nii bon c'est presque dans le même sens en disant que ne que est-ce que li li ñuy def noonu mënuñu ko gisee benn genre communication mais ay journalistes lañ ils étaient libres de de poser Euh, pour man ku amul liberté bind même si culture lu la neex am ay faits yoo xam ne ce sont des faits te loolu noonu wax man wax naa wax naa la ko mooy euh, doomi gaynde maas ak lépp lu ñu mën di am ci ci ci ci ci ci euh, consécration ci award xam nga mosuloo si bind c'est pas parce que tu n'es pas au courant mais c'est parce que dafa am peut-être loo xam ne yaakaar nga ne boo ko defee peut dafa dafa am ñu muy frustré am ñu mu dul neex donc pour man bu nekkee politique la pois koo xam ne nii il n'est pas libre même dans la culture de ce qu'il doit et ce qu'il veut fa am pois donc encore une fois euh, wax bu demee ba public ñëpp am nañ ci droit donc wax wax boobu dafa public moo tax ma am ci droit wax ci man sama opinion personnelle mooy mu nga traité dossier boobu noonu ak ni ñu ci waxee c'est pour pour man dafa nekk koo xam ne nii du analyse maintenant nag. Euh, la marque des grands journalistes en général mooy ñuy bind article yoo xam ne dafay gudd mais mais mu fourni man j'ai jamais vu article boo xam ne pour man Aïssatou Diop Fall bind na ko français nag du référence mën nañ ne bon euh, ce n'est pas la marque de ce qui est intelligent ou ne pas intelligent nous on a, on a toujours dit langue wolof la te affaire bi c'est en langue wolof mais bu nekkee ne journaliste la c'est style ak yooyu noonu au moins ñu produit ay ay ay ay yoo xam ne nii dafay lal su xam-xam ak référence pas yow li nga xalaat ak sa bopp nga jox ñu ay référence au moins dañu ñu permettre ñu gën a élargir suñu champ de vision bu nekkee ne comme léegi buzz ku wax lu gën a graaw rek la gars yi di gën a suivre gën a gën a gën a gën a gën a partager parce que li ngay wax dafa graaw à la day nekk entre euh, peut-être saaga parce que li nga wax léegi pour man c'est c'est très limite quoi xam nga nit ko xam ne du wax dëgg Euh, mythomane la xam nga donc yooyu yëpp nga wax ko nit koo xam ne nii en fait peut-être mu mosoo def ak moom entretien xam nga peut-être war war waroo sax proche ak moom pour man du ma pour ne benn journaliste mu proche buy traité information mu proche ak Ousmane Sonko maintenant quand journaliste est engagé mën nga am journaliste bu engagé ah mën na nag ne man damay jël euh, option daal proche ak Ousmane Sonko di def ay chroniques yoo xam ne en fait da partisan parce que. Comme j'ai dit, la vérité n'est pas, n'a pas de parti. Mais la vérité, d'afin contre des gens qui ne veulent pas la vérité éclate. Donc, chronique boobu nga def ak en général euh, si si nit boo xam ne pour man waroon nga am benn équidistance li nga wax lépp en fait ça s'est effondré dafa dafa daanu dafa màbb bi nga ne yow da nga jege Adji Sarr da ngay waxtaan ak moom te moom tasaal la jërëjëf.